salaamaaleykum ñu leen waa Capa TV bu baax a baax a baax baax war a teewaay fi tey jii nii muy projet Ousmane Sonko maanaam moo waral ñun suñu teewaay fii nii parce que gis na ne ñun ndaw ñi ci moom ci leen di gën a gisee suñu bopp ci leen gën a yëge suñu bopp ndaxte tey jii nii dafa am loo xam si ne suñu maam dañ koo xeexoon ci wàllu diine ba loola noonu tey ji tax diine ju dëgër samp bi léegi nag dem nañ ba ci biir tey jii nii suñu àq ak suñu yelleef da ni ne diine jooj noonu te jii fi mu ñu ngi koy xool di ko commencé néewal doole ginnaaw te loolu noonu tamit bokk na ci li tax moom muy gën di xeex dem na ba tey jii ni tamit bu ñu gën a euh, xeexaat tamit suñu ressource yi nga xam si ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ak suñu alal yi nga xam si ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp dem na ba tubaab bi tey moo koy jël di ko jëriñoo cim réewam te amul dara léegi nag ñun mënuñoo dem ba nga xam tey jii ñun ñoo nekk dem ba xale bu ndaw bu nekk senegal dem ba am 30 ans mënoo am oto mënoo am kër nekk sa kër baay sa ndey di dundal sa baay di la dundal loolu doy na gàcce xale bu ndaw bu nekk Sénégal bu amee 25 ans war naa mën a am këram gu baax gu mën dëkk war a mën a am foo xam ne dafay liggéey saa yu xëyee oto war na kaa mën a jël wala moto wala mu am boîte pharmacie boo xam si na sax dina ko mën a bàyyi këram en cas où bu mënee gaañu yenn gaañu gaañu yu ndaw yi euh, mu mën ko taxawoo dañ ko yóbbu procès loolu moom ay caaxaan la mag loolu moom final la Macky Sall nag moom mooy xool final bi bu ko bëggee suyee dina ko suyee bu ko bëggul tamit na xool nu mu koy organiser rek na ko leer na man tey jii man man pare naa maam képp koo xam si ne naa la bor maa ngi lay ñaan li laahi wa rasuli nga jégal ma ko képp koo xam si ne tamit naa la bor may naa la ko ci xol bu seddu guy bis bu fekkee ne day taxaw ne day yóbbu Ousmane Sonko projet ñun pare nan waaw nit benn bakkan la yor kenn du dee ñaar yoon benn yoon rek ngay dee ci sa dund ah da ngay dee da ngay dee ci ngor wala nga dee wala nga dee ci ak ñàkk fayda rek te itam Sonko dañ koy ñaan leen nin xaroo ci moom duñ ko mas a wor ci kàttanu yàlla te non projet gëmuñu ko waaye moom itam nanu dimbali lay wërësul ba bis bu ñu ko fi tegee mu bañ ñoo wor loolu rek leen saako ñu sa wor la ñu gëm ñun dañoo kontaan ñun duñu duñu Pastef mais patriote lañu Sonko lañu ñun dañoo kontaan ndax ñun li tax ñu gën a kontaan dañoo dëkk Kër Massar fii ñoo ngi fii unité 2 la fii unité 3 la ñun ñu ngi indi yaakaar oh. Sonko choisir Kër Massar pour ñëw defee fi lii muy def xoolal lu ko jaral jaral nañu ko lu mu jaral Macky Sall jaral nañu ko. Touba Darou Salaam yëmbal Nord ba ci biir yëmbal Nord yëmbal Nord ñëw na massivement yëmbal